asalaamaaleykum internet Senego yi ak Kawtef nuyu nañ leen di leen dalal bu baax ci seen émission bu bees bi muy fas ak facette tey nag euh, premier numéro émission bi dañuy dalal ki nga xam ne mooy Amina Badiane présidente comité mi Sénégal parce que mois de mars oblige mois des femmes euh, ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ak internet Senego yi ak Kawtef ñu dugg faram leen waxtaan bi installez-vous confortablement parce que la discussion sera fructueuse madame Badiane ñu ngi lay nuyu di la daral bu baax ci Sénégo TV ak Kawtef. madame Mané fay naa la eh, di leen sant di leen gërëm ci déplacement bi yéen waa Sénégo TV di kontaan trop nag ci seen ñëw fii pour jël ma ITV. ñoo la gën kontaan ñoo la gën a kontaan madame Badiane euh, internet Sénégo TV ak Kawtef seen émission face ak facette euh, képp ki nga xam ne rek personne bu influente la nekk fii ci Sénégal dinañ leen ko indil fii il elle sur le plateau mu nekk leader nekk entrepreneur nekk influenceur nekk sax li nga xam ne mooy politicien dinañ ko dalal fii ci suñu émission bi wante it dañ leen di jox dig daje ak ay reportage yu am solo yoo xam ne dinañ ko def fii ci biir Sénégal ak émission face ak facette premier numéro ak madame Badiane trois parties lay doon dans un premier temps dina joxe li nga xam ne mooy actualité ak internetu Sénégo TV ak Kawtef ñu dugg ci deuxième partie bi confidence troisième partie nekk quiz question réponse émission bi nag boo leen bëggee participer yéen tamit ñi nga xam ne yéenay suñuy internaute wala sax ngeen ñu bëgg suggérer des personnes yoo xam ne bëgg ngeen ñu invité ko n'hésitez pas à nous écrire et commenter la video like liker la vidéo vos avis dinañ ko xaar fii ci Senego TV ak Kawtef madame Badiane kontaan nañ bu baax a baax tey premier numéro li nga xam ne mooy face ak facette ñu dalal la ci 8 mars bi et qu'est-ce que ça vous fait déjà madame Mané dama kontaan parce que déjà honneur la bii di seen premier numéro ngeen tànn ma man en tant que euh, personnalité ci dëkk bi donc loolu vraiment dama ci bég kontaan trop aw ma seen fay. ba pare nag mu tombé ak 8 mars. fête de la femme. mu nekk mois bu am solo mois de mars ci mhm. femme yëpp mhm. donc vraiment daal kontaan naa mhm. tey ci 8 mars boobu ñi nga xam ne ñuy femmes yi ban message nga leen di wax ndax teyit yaa ngi ci dëkk bi wante it bokk nga ci ñi nga xam ne ñu ngi doxal ci dëkk bi waaw femmes yi dama leen di wax di leen ñaaxaat ñu gën a gëm seen bopp parce que nag ay jàmbaar lañu léegi dëkk bi femmes yi ñu ngi ci lu nekk façon liggéey bu nekk femmes yi ñu ngi koy def di ci tedd di ci dimbali seen waa kër di ci dimbali seeni famille mm-hmm. donc euh, di leen wax rek euh, ay jàmbaar lañu te di leen ñaax aussi ñu gën a góorgóorlu parce que nag loolu mooy autonomisation parce que jigéen dafa war a autonome dafa war a mënal boppam mm-hmm. parce que man dama jàpp ni liggéey dafa bokk ci jom bokk ci dignité waaw parce que liggéey rek moo wóor comme li olof di wax donc ma leen di rek encourager di leen souhaiter bon fête di leen ñaanal nag te aussi femme bu nekk ci naqar aussi ñu ngi koy ñaanal mu jóge ci waaw mm. yàlla defal ko jàmm comme ni mu ko waxee rek ñun tamit ñu leen di souhaiter bonne fête à toutes les femmes comme ni ma koy waxee vous êtes belle forte influente wante it autonome def leen tout ba ngeen mënal seen bopp ndaxte it olof ni koy waxee góor day takk tubéy day takk sër noonu la. noonu la. <laughs> mu ngi mu ngi noonu parfois dañ may corriger ci commentaire yi <laughs> moo tax. ma leen koy leeralal. loolu lañuy wax rek góor baax na jigéen baax na. Mm-hmm. te léegi jigéen ñi foo gis góor rek eh, gis nga fa jigéen. Mm-hmm. Mm-hmm. d'ailleurs loolu moom mooy eh, kii légalité. Eh, di wax aussi parité. waaw donc euh, dëkk bi vraiment ñi ngi koy doxal bu baax a baax kontaan nañ ci loolu bu baax. am na solo ñuy tugg rek ci waxtaan bi mm-hmm. commencé ko ak ci li ngay yëngu muy organisation Miss Sénégal est-ce que mun nga ñoo wax ci Miss 2023 bi organisation bi ndaxte gis nañ ay visites yoo xam ne def nga ko te it euh, ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi namm nañ bu baax boobule organisation. waaw 2023 bi édition bi ñu ngi koy préparé. amoon nañ nag benn break break bi xaw na yàgg mais yàlla def na jàmm ba ñu ngi koy waajaat di ci waxtaan ak ay autorité donc yaakaar naa ni balaa yàgg daal dinañ mën a teg benn programme pour mën a lancer euh, la nouvelle édition de 2023 d'accord gis nañu aussi ay visites yoo xam ne def nga ko est-ce que mën nañ am tuuti information ci visites yi ngeen xam ne am ngeen ci offre accompagnement ak aussi promesse yi nga xam ne euh, wax nañ leen ko ci édition 2023 ci Miss bi waaw dëgg la parce que rencontré nañ le ministre du tourisme rencontre également le ministre de la culture et du patrimoine historique euh, di leen euh, remercier bu baax de passage parce que ñoom dañu ci yàgg ma sa jàpp depuis bi ñu commencé ba léegi dañu mës a accompagner mais li fi jaar ak yëpp tamit ren bëgg nañ ci taxaw beneen taxawaay boo xamante ni vraiment taxawaay bu ñàkk caaxaan la pour que lii mën a suqalikuwaat ñu mën ko tegaat mën ci jàppale askan bi parce que patrimoine la mi Sénégal mm-hmm. yëfu ñëpp la yëfu Sénégal la du du yëfu kenn donc yàlla nag moo tudd kenn il faut mu jiite donc yàlla mën la ko jox mais incha allah dinañ ko doxalee ni mu waree incha allah 2023 bi. d'accord am na solo mm-hmm. tey nekkul ci Miss Sénégal kese ngay yëngu ndaxte gis nañ Miss Monde année passée Penda Sy mm-hmm. demoon na mm-hmm. année bii aussi est-ce que mun nañoo xaar candidatu Sénégal mu dem ci Miss Monde. waaw Penda Sy moo demoon daaw 2021. parce que daaw dafa tombe bi nga xamante ñu ngi def euh, Miss Monde demandé ñu suñu candidature boobu organisé wu ñu bi ndax Covid 19 bi fi jaaroon ku ne xam na pandémie bi dafa bloqué lu bari. Mm-hmm. tardel aussi euh, organisation yu bari ba tax na. Euh, biñ ñu laajee fii bu war a Sénégal dañu organiser benn casting au niveau international ci la ku ñuy wax Penda Si di Miss Tamba candidate bu Tamba génne donc ñu daal di koy yabal mu dem parce que nag mënuñu ko woon raté. lu toll mhm. nii rencontre international bu toll noonu. 120 pays di ci dajaloo. moo taxoon ñu envoyé la Miss Penda mu dem représenter Sénégal ma ñëw ren aussi ñu ngi koy préparer ren ñu Dubaï la war a nekk mhm. donc ñu ngi xool ak Miss bi nga xam ni mooy Miss actuelle mhm. ma Fatou Lo moom tamit dina war a dem représenter Sénégal à l'international d'accord mhm. est-ce que mën nañu revenir ci critères yi parce que l'année passée nekkul tout pays d'Afrique yëpp ñoo dem gis nañ Sénégal gis nañ aussi Côte d'Ivoire mais am na yeneen pays yu bëri yoo xam ne gisuñ leen te it day baax ñu revenir ci critère yi d'autant plus que nag dañuy promouvoir li nga xam ne mooy culture sénégalaise waaw critères yi euh, au niveau international 1 mètre 72 le minimum mhm. âgé de 18 25 euh, mhm. euh, nationalité sa dëkk bi nga nekk xam nga niveau d'études aussi da ci jouer parce que il faut nga am background miss bu ñu koy wax du rafet rek mais il faut que tamit nga am euh, intellectuel bi mhm. waaw donc loolu moom mooy critère yi naturellement aussi parce que bëgguñu tamit xeesal ak yooyu bu dee fii ci côté Sénégal bi dañuy bëgg am xale boo xamante ni vraiment elle est naturelle waaw donc loolu moom mooy critères yi léegi nag pour que euh, ñëpp mënuñu dem Miss Monde loolu moom lu am la ndax am na yenn pays africains yoo xamante ne ni ba léegi demuñu Miss Monde te ñi ngi recherche pour dem fa parce que yombul mhm. parce que Miss Monde dafay jaay licence am bokk bi du gratuite donc dañ koy jënd licence bi mu cher lool nag xaalis bu bari sax lañ lay laaj donc mais man dama góorgóorlu ba fexe ba jënd ko boole ko ci parce que ci la bokk bu ñuy wax euh, xam nga bu ñuy jaay la destination Sénégal mhm. euh, il faut ñu boole ci international ndax lépp mënuñu ko yemale rek Sénégal donc du am porté bi mu war a am mhm. moo tax ma góorgóorlu ak euh, à travers mes relations mon réseau mhm. fexe ba dugal Sénégal mu dem bokk ci waaw parce que amoon na rupture Sénégal Miss Monde musul woon a bokk ah. mais Miss Univers la mësoon a bokk à l'époque quand il y avait Ambroise Gomis waaw Mmh. d'accord kon message la aussi bu important boo xam ne sénégalais yi war nañ koo xam ndaxte li nga xam ne mooy Miss Monde licence la boo xam ne it koppar lay laaj kon ce serait bien nga lancer sénégalais message ndaxte ñu mën a jàppale suñu candidate bi nga xam ne ren muy Fatimata Lo daf ñuy représenter fii ci Dubaï pour vote yi ak aussi nañuy partager ces vidéos waaw di ñaan sénégalais yëpp ñu jàppale mademoiselle Fatou Lo mm-hmm. parce que am na ay vote online yoo xamante ni nii sa peuple moo war a nekk derrière votel la parce que foofu tamit day compter ci jury bi nekk foofu mm-hmm. ku ku ëppale ay vote di nga nekk ci kanam kon nag nañ ko jàppale di woo aussi autorité yi ñoom tamit ñu gën ko accompagner mm-hmm. ndax euh, Miss Monde aussi il faut xam nga nga am sa billet d'avion sa garde-robe euh, jënd sañse bi ak boo demee hôtel yi ngay dal yooyu yëpp tamit xaalis la mm-hmm. donc il faut tamit euh, ñu ngi ñaan vraiment Euh, ñu soutenir ñu pour que ñu mën a dem indi ndam li indi couronne bi fii ci Sénégal comme ni ko coupe du monde football di defee ak basket di defee. pour pas waaw waaw bu ko defee ñu kontaan. Ah. waaw Sénégal jëm <laughs> kanam waaw Sénégal <laughs> TV ak Kawtef je rappelle que Amina Badiane présidente du comité Miss Sénégal moom lañ dalal tey ci premier numéro face ak facette ñu daay jàll rek li nga xam ne mooy deuxième partie émission bi Amina muy côté confidence. information yi may waaj a jox bu bu nekkee ne valable na nga wax ma <laughs> ndaxte on a fait des recherches ci Amina Amina vous êtes née à Thiès ancienne mannequin international def nga it ay dëkk yu bëri yu ci mel ni Amérique wante it ay pays Europe yu bëri daal di nga ko def même Amina boobu tamit li nga xam ne mooy ay trophée daal dina ko remporter lu bëri plus une trentaine de trophées daal di nga ko remporter jël nga it ay concours Miss yu bëree bëri tey Amina moom mu ñëw reconvertir ñëw nekk femme d'affaires jënd droit Miss Sénégal ci Ambroise Gomis tey nga nekk comme présidente communauté bi depuis des années ngay doxal li nga xam ne mooy organisation Miss Sénégal ces informations bu confirmez

plainte collective yi nga xam ne defoon nañ ko muy plus de deux cent plainte ak yeneen live yoo xam ne defoon nañ ko pour Amina ginnaaw wax bi nga xam ne euh, miss bi yëkkati woon na ko tey moment yooyu nan nga ko passé woon ces moments difficiles yi nga xam ne tey sa photo dañ ko doon partager sur la toile accompagne légendé ko ak des yoo xam ne dafa métti ci sa famille ci ñi la xam ak aussi yow ci sa honneur Eh, waaw mu nekk nag lu metti loo xam ni dama ko dund eh, lu difficile et c'est malheureux parce que lu toll nii Miss Sénégal daf fi yàgg patrimoine boo xam ni kenn waru ko yàq eh, non seulement ñu jël ki nga xamante ni moo koy diriger ah l'instant yi ci réseaux sociaux yi kenn xamul nu mu toll wax ju bon donc loolu dafa tiis dafa ñaaw ci nit koo xamante ni kenn xamu ko ne ma amaana ñi ko doon wax sax xamuñu may kan ne su ma leen rombee sax ci mbedd bi sax duñ ma xam donc euh, loolu daal euh, metti na metti na ci xol mais ma ni ah xëy na nattu la yàlla tamit day tegaate ay nattu donc te jaam bi rek la koy teg na ñu toog xaar ndax tamit dëkk bi dëkku yoon la léegi comme li ñu wax loolu la ñu wax tuuma léegi nag euh, ñu toog rek patienter waaw mm-hmm. léegi yoon tamit saytu bi mu yoon saytoo après génne lu mu génne ñun tamit ñu ànd ci mais daal di la xamal ni loolu euh, causé na ma beaucoup de préjudice. Mhm. préjudice yi dafa fu ko waaye takk sax passé na parce que euh, honneur dafa fort ci nit. Mhm. nga yàqal ko ko liggéey bi aussi arrêté pendant un an amatuñu benn activité. Mhm. xam nga sa famille euh, am lu leen métti nit ñi di di la xoole benn bët bi alors que li ñu wax yëpp si faux alors que dara amu ci. lépp dañ ko inventé tout simplement ay nit yu nekk derrière tey bëgg récupérer organisation bi rek moo waral lii yëpp xam nga te mhm. loolu tamit ñaawlu naa ko vraiment mhm. ñaaw léegi nag dama damay ñaan rek di ñaaxaat nit ñi rek nañu delloosiwaat seen xel mhm. nañu jàppalante xol yi nañu laabirante jigéen ñi nañu mànkoo nekk benn bu ko defee ñu mën a liggéey Sénégal jëm kanam mais yi am ci réseaux sociaux tey du ñu yóbbu fenn retard la jox parce que euh, yenn yi sax dama yaakaar ni am jot la rek waaw parce que boo nekkee ci li nga nekk di liggéey doo am jotu sax dugg ci loo xamante ne nii sa yoon nekku ci donc daal euh, noonu daal laa ko dundee woon daal metti mm-hmm. rek mm-hmm. waaw doonu mm-hmm. lu yomb ba tey ci lynchage boobu ban ban kàddu moo la ci gën a metti bi nga xam ne bi nga ko déggee wala bi nga ko partagé wala bi nga ko liiree jam na la ba nga xam ne yow laal nañ la tey dañ la tooñ waaw propos yi xale bi waxoon metti na ma trop parce que euh, dafa victimiser wu woon xam nga te ci loo xamante ni nii affaire viol la viol crime la. Hmm. dafa loolu dafa metti moo tax man bi ma ko déggee aussitôt rek mu am lu ma def waaw donc euh, loolu daal mooy li ma gënoon metti ci affaire bi parce que nag xale yi aussi. dañ leen di protéger man mm-hmm. yaay laa ci ñoom mm-hmm. donc lépp lu leen laal man laal na ma mm-hmm. lu leen metti man metti na ma donc may veiller ci seeni protection guddeeg ba ah. cek euh, man bañ naa ko ba dama am sax benn association bu tudd Goré Gét boo xamante ni nii tamit day protéger les femmes donc tey bi ñu déggee loolu mu ñu am ci naqar bu tiis mais li yàlla di wax rek euh, ba ko yoon saytoo ne du dëgg ah ñu ne alhamdulilah comme du dëgg alhamdulilah waaw sant yàlla ñu santaat suñu borom rek. Mm-hmm. waaw ci wax. am na solo bu baax kàddu yi ndaxte it lessage eh, bi ci internet bi bëri woon na mhm. commentaire yi partage yi live yi ak révélation yi doyoon na waar ba ku ci nekk rek yaa ngi yëkkati woon sa kàddu di jëmale ci mbirum miss boobu nga xam ne ku ci nekk yaa ngi ci doon wax ba tey ci miss bi balaa ñu jàll ci deuxième partie ci moment boobu aussi tey lumu mu métti métti ak wax ji am na des personnes yoo xam ne taxaw nañ ndaxte bu ñu gisee Amina ah, dañuy jàpp ne ah, mental bi xaw naa des dafa xaw a sensible ci critique tey yan personne ñoo la gën a marqué ci seen taxawaay ak aussi des phrases yoo xam ne automatiquement yow boo ko déggee rek tu as envie de que c'était difficile. waaw euh, damay gërëm bu baax samay avocat parce que ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore woon dossier bi di ci jaabante di dem ak dikk sonn ci. di remercier samay parent tamit ndax euh, liñ ne doom lu ko xori rek ay parents dina am lu leen métti donc ñooñu tamit vraiment euh, accompagner nañ ma ci moment yu difficile yooyu mm. gunge ma ba ba ba ma ci génnee am na tamit sama yenn xarit yoo xamante ni vraiment maa ngi leen di remercier de passage ak ay partenaires. Mhm. par exemple ku ci nekk ku ci mel ni madame Seydi. Mhm. Ah, di ko di ko la directrice de EMA ma di ko remercier de passage moom tamit côtoyé na ma ci sonn na ci trop vraiment. Mhm. Ah, ànd ak man gunge ma ci moment yu difficile yooyu. waaw ak tam sama frères yi sama sœurs yi ak sama yenn xarit yi. donc sax su ma limee damay juum parce que am na ñu bari ñu nga xamante ne nii aussi euh, ñaan nañ ci aussi mm, jàmm dellu siwaat ak coow li mm-hmm. ndax coow li fu waay nekkoon dégg na ko coow li mm-hmm. defe naa ni mondialement <laughs> ñëpp ci wax daal mm-hmm. donc euh, voilà di di remercier ñëpp rek képp koo xamante ne ni taxawu nga ma te ku ma xam ak ku ma xamul yëpp ma lay remercier di la sant di la gërëm ci loolu deuxième question rek ñu génn ci mbirum Miss bi ban phrase moo doon gën a ñëw ci ñëpp par exemple tey di nga gis nit koo xam ne buñ ko tooñee automatiquement ku woote dina ne ah yow de bëri woo histoire kenn du la tooñ du genre wala ah lii de bett nañu parce que tu ne pas genre personne yi ban phrase moo doon gën a ñëw ci say proche yi nga xam ne dañ la doon jàppale ci moment boobu say côté waajur wala it sa côté staff nga xam ne ñoom xam nañ la bu mm-hmm. waaw ñu ci bëri dañ ma doon woo ni ma ni Amina boo tëddee nelawal yow am nga ñaanu waajur fonk nga sa waa kër yaa ngi jàppale nit ñi yaa ngi def lu baax ci dëkk bi kii du yow lii kenn gëmu ko donc mm, na sa xel dal loolu moom doon naa ko dégg mm, vraiment ñu bari dañ ma ko doon wax ne ma boo tëddee nelawal lii moom euh, bul sax am looy jaaxle parce que lii du yow parce que ku la xam xam ci lu baax li nga nekk ak ci lu dëggu li nga nekk mm-hmm. donc euh, lii yëpp daal toogal rek nga nga teg yëpp ci ci loxo yàlla yàlla suñu borom dina àtti dëgg loolu rek lañ ma doon wax. Mhm. waaw te loolu tey moom moo nekk dëgg tey. Mhm. Mhm. ba tey dëgg boobu amee it def nga communiqué eh, yoon moo yor dossier bi wante yow uh, def nga acte de grandeur parce que communiqué nga ci wax nga ci aussi que ne setal nañ la liñ la doon toppee yëpp dañu do dañu ko classé sans suite li nga xam ne mooy dossier bi wante it utiliser nga le mot pardon. malgré que tey lynchage bi métti woon na mm. mais le mot pardon ñëwaat na ci communiqué Amina bi pardon bi est-ce que mën nga ñu ci revenir leeral ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan fii ndaxte it am na loo xam ne yoon moo ko moom mm-hmm. waaw mais xam nga ku nekk rek dafa am loo moom mm-hmm. donc yoon dafa am lu mu moom loo xam ne bu ci xasee dugal loxoom kenn mënatu ci dara dañuy mm-hmm. bàyyi mu def liggéey parce que ñoom doy nañu liggéey bi ni ñu koy def ni mu koy defee nu mu rafetee Euh, ñun nag dañu nekk ay jullit mm, jullit dañ ne nañu jéggalante ci suñu biir mm-hmm. donc loolu moo tax tey boo jógee nga ni tey ñi ma tooñ xam nga bari na ndax tey boo doon mm-hmm. xool ñi ci wax ñëpp mm-hmm. kenn xamul nu mu toll mm-hmm. mais di leen gën ñaaxaat rek di wax ni Sénégal nañu bàyyi di dox ci ay émotion parce que loo nga dégg rek il faut que danga nga ko war a vérifier ba xam dëgg la wala du dëgg balaa ngay jóg donc loolu moom moo nax ñu bari ba tax nañu wax ci liñ ci war a wax donc mais man euh, jafewu ma jafewuma cela veut dire que euh, xam nga kilifa day am nu muy taxawee. donc kilifa des fois ku nga xamante ni moo jiitu du bañ ku ko wax wala ku ko sànni xeer. mais ñun duñu fayantoo. donc loolu moom mu nekk euh, loo xamante ni ay qualité la peut-être yu nekk ci man. bon ma di ko sante suñu borom <laughs> waaw. <laughs> c'est intéressant c'est intéressant que parti boobu mu leer ndaxte it communiqué bi ñu ci jot bi ñu bindee communiqué bi gis nañ li nga xam ne mooy commentaire yi internautes yi réagir ci boobu les communiqué ndaxte lynchage bi dañ doon jël sa des vieilles photos yoo xam ne dañ ko doon indi sur la toile et c'était pas du tout évident d'autant plus que Sénégal ñun ñu ni neen la surtout nag nous en tant que femme comme li dañu war a boole suñu force parce que dañoo fortu bu ñu boolee suñu doole bokk di xàccandoo di dóorandoo lu ne mun nañ koo am ci dëkk bi te lu ne mun nañ koo def donc c'est important que ñun ñu nekk benn di xëccandoo di dóorandoo di waxante lu baax di partagé wante lu baax di suturaalante eh, li nga xam ne mooy suñu biir ci ñun ñëpp daal tey ñu ñëwaat ci beneen Amina ndaxte it à part Miss Sénégal bi nga xam ne yaa ngi koy organiser dañuy gis da ngay def ay don don bi même boo ko defee doo ko rendre publique say statut ngay def mais doo woo presse doo médiatiser c'est très rare à bu Thiès bi mais yi des yëpp dañuy gis nga koy def ak sutura da def lu baax di laqatu <laughs> wala qu'est-ce qu'il y fii waa amee donc da ngay woo yëpp ñëw leen maa ngi maye wante xew da ngay def doo wone à part statut wala ñu yor sa contact wala bu Thiès bi c'est très rare te yaa ngi def yoo xam ne Sénégalais yi dañ ko war a mën a xam. waaw dëgg la maa ne man damay yëngu ci lu bari ci affaire sociale. mais duma wax duma ko médiatiser lu bari parce que dañ ne booy def lu baax da ngay def ngir yàlla. Mm. man damay def ngir yàlla. donc euh, moo tax dama ni jarul ngay wax wax ju bari wala ngay wanewu parce que yàlla moo lay fay euh, damay def te xaaruma ci merci mm-hmm. donc yàgg naa di liggéeyal Sénégal lii moo gën a tuuti ci li may def ci affaire don yi ak yeneen ak yeneen yeneen yoo xamante ne ni mosuma ko toog fenn wax ko. baaxee ñu ci tay parce que émission face ak facette dañuy bëgg a xam. Mm-hmm. exactement baaxee ñu ci yeneen yi nga xam ne mm-hmm. don yi gisuñ ko te it sénégalais yi bëgg nañ koo xam. Mm-hmm. waaw euh, don yi côté sociale bi bari na lu may def. taalibe yi dama leen di gëstu très souvent. di leen jox ñuy lekk. xam nga euh, matériel médical dama koy indi bari na. Mm-hmm. ambulance médicalisée. di ko mm-hmm. joxe ci hôpitaux yi parce que besoin bi mi ngi fi. Mm-hmm. xëy na eh, tamit état bi mi ngi def lu baree bari bari bari bari parce que jàmbaar lañu mais. ku am lu baax aussi nga mën a ñëw mën a yokk parce que waroo toog rek nit waruñu toog rek toujours di xaar état pour man dama jàpp ni ku nekk rek boo amee war nga mën a jàppale doomu aadama war nga mën a dimbali askan bi dégg nga euh, ba pare orthopédique aussi damay indi ay matériel handicapé yi dama leen di gëstu mhm. damay dem di leen seeti donc maa ngi waajaat yeneen ci prison yi ah euh, bu loolu weesoo association bi ma yore aussi dina jàppale ay femmes femmes yi nga xamante ni dañu am ay problème am ay jafe-jafe wala ñu war a liggéey peut-être manqué ay financement maa ngi ak ay partenaires yoo xamante ne ni yooyu yëpp dañ ci yëngatu ba pare euh, Sénégal dama yàgg aussi euh, créer ay rencontres aussi yoo xamante ni pour indi ay investisseurs ñu ñëw investir fii au Sénégal loolu aussi dama ci doon yëngu parce que mhm. fii ñun ñoo fi njëkk organiser le salon international bucco dentaire CICES mm, keroog indi nañ fi lu mat soixante quinze exposant yoo xamante ni ñëw nañ fii jóge fu nekk partout dans le monde ñëw exposé fii au Sénégal mm-hmm. ak ñeneen ñoo xamante ni nii borom entreprise yoo xamante ni tey ñu ngi fii ñu ngi ñu ngi ñu ngi fii Sénégal am nañ fi ay bureau ñu ngi liggéey ubbi nañ fi seeni société donc loolu moom mooy jëmale réew kanam mm-hmm. waaw te aussi man aussi bu leen fàtte ni aussi ambassadrice la African Tourism Board mm-hmm. parce que kooku kuréel la boo xamante ni au niveau Afrique ay euh, personnalités yi ci nekk euh, mm-hmm. ñoo xamante ni ni ay leader lañ ci dans le domaine du tourisme mm-hmm. ñoo xamante ni ay chef euh, d'entreprise lañu ay nit yu am solo yoo xamante ni ñoo ëmb boobu kuréel ci Afrique bi yëpp mm-hmm. donc man tamit ñu tabb ma ci ambassadrice pour tout ce qui est culture mode fii ci Sénégal ma représenté leen fii au Sénégal. donc li may def bari na ak tamit di dem di participer ci ay salons au niveau international salon de l'emballage salon euh, du tourisme salon. du marbre international du marbre chaque année ma def ko. donc voilà sama activité sama agenda dafa chargé. donc du muy Sénégal rek laay def am na yeneen yu bari yoo xamante ni maa ngi ciy yëngatu waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord ci don yooyu tey parce que gis nañ ne eh, lu bari Europe nga ko passé. te ñëw Sénégal eh, di def ay don don yi bi nga nekkee Europe da nga ko doon xalaat wala da nga ñëw Sénégal gis benn situation bu la marqué nga xam ne yow da nga war a jàppale. waaw man bi ma ñëwee Sénégal ci laa gis situation bi ma gis ni am na côté yoo xamante ne nii vraiment euh, soxla nañ ko. Mhm. ndax boo génnee tuuti laajul sax nga génn parce que xam nga euh, euh, jumtukaay yooyu dafa am solo. Mhm. hôpital tey bu ci am de plus kooku daf koy faciliter rek le travail. Mhm. xam nga moo tax ma ni luñ ci mën ci renforcer suñu plateau technique bi au niveau des hôpitaux nañ ko def. parce que santé dafa am solo. Mm-hmm. waaw imagine jigéenu wérul tey war a wasin amul lu ko yóbbu wala mu woote ñu ne ko ambulance yi dañu fees wala dara donc yooyu yëpp dama koy xalaat. Mm-hmm. donc moo waral ma am vraiment yéene euh, lu ma ci mënti indi rek pour man du doy pour mën ko partager ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko soxla. Mm-hmm. jàpp ci liggéey bi. d' accord am na solo am na solo bu baax ñu lay gën a encouragé ci lancé bi nga nekk ndaxte it góor baax na jigéen baax na ku ci nekk ci li ngay yëngu rek def ci fullaak fayda ak jom ak confirmé ni fii yow mën nga te jigéen nga te yaa ngi koy wane ba tey buñ jógee ci côté social euh, dañuy defaat recherche dugg tuuti ci côté religion ndaxte it dañ lay gis euh, fi nga xam ne muy Tuuba suñu ayee Amina day muuru ànd ak délégation ànd ak doole dem joxe wante il se trouve que Amina moomu taalibe cheikh bu mag la. <laughs> waaw loolu dëgg la parce que man soo xoolee samay jëfin sax da ngay defee ni murid laa. <laughs> alors que taalibe cheikh laa. waawoon laa gën a féete mais nag murid bi aussi dama ci am côté sama côté yaay murid la parce que nag man sama yaay si sëtu maam Jéeri waa daan sugu la bokk. <laughs> donc ñooñu ku leen xam dégg leen dañu jege woon Serigne Touba. Mm-hmm. donc moo tax lépp lu ñu mën a def Touba rek ci lu rafet dañ ko fay def donc duñu fay gëj. tiwaawoon moom foofu moom fa la xol bi nekk parce que man nag taalibe Cheikh laa nag mm-hmm. <laughs> ci loolu laa juddu mm-hmm. yaru ci sama côté papa ay tijaan lañu parce que ñun waa Thiès lañu. donc ñoom aussi tiwaawoon lañu fekk baax. moo tax nag euh, ñu bëgg leen loolu waaw. Mm-hmm. d'accord dernière question rek balaa ñuy dugg ci kiwis bi taalibe Cheikh eh, di dem Touba di euh, communauté yëpp nga jox leen seen cër tey buñ gisee nouvelle tendance bi am sur la toile nga xam da ngay lancer sa TikTok lancer sa direct jël kilifa diine di wax naka sudul noonu tey ban message ngay wax ci jeunes yooyu ndax tey tendance la boo xam ne jël nañ ko te mën naa tas réew mm-hmm. loolu damay koy euh, ñaawal parce que rafetul ndax ñooñu ay kilifa lañu kenn warul jël wax di leen dendale wala dara rek di leen dendale donc euh, askan bi nit ñi nga xam ne ñooy def loolu war nañu mën a war a delloo ci seen xel am respect tamit wàññi tuuti loolu parce que loolu rafetul waa parce que dëkk bi nag dëkku jàmm la te te ñooñu ay ay mag yu baax lañu. Mm-hmm. ay kilifa la yoo xamante ni dañu ñaan ci réew mi. ba tey réew mi jàmm rek moo fi am hmm. donc jàmm jooju bëgguñu dara yàqal ñu ko hmm. waaw di ñaaxaat rek ñuy ñaan jàmm sax fi jàmm yàgg fi te hmm. te ñiy def loolu vraiment di leen ñaan ñu bàyyi ko parce que loolu rafetul Mhm. Mm-hmm. am na solo je rappelle toujours que internet Sénégo TV ak Kawtef yéen a ngi seen émission face ou facette tey nag premier numéro bi comme ni ma leen ko waxee présidente communauté Miss Sénégal lañ dalal Amina Badiane ñu nekk nag ci dernière partie bi muy quiz yoo xam ne question cinq questions rek lay doon mhm. dañoo mën a tooñ ne question yi fu nekk <laughs> dinañ fa dugg wante du doon lu lu jafe. tontu euh, tey buñ ñëwee ci première question Amina lan moo koy définir yan yan moo par exemple tey mun nañ ne Amina dafa am caractère Amina dafa timide yan moo moo lay définir mhm. sa personnalité waaw ah man de dinaay dégg léeg-léeg ñu ne Amina tubaab la loolu dama ah. koy faral dégg souvent <laughs> <laughs> te xaw ma moo boobu fan la jóge parce que man duma tubaab <laughs> man fii laa juddoo yaroo fii donc euh, loolu dama koy dégg euh, timidité boobu aussi peut-être am na ci man ndax euh, loolu yar la rek parce que dañ ni nit moom boo bëree kersa rek cela veut dire que loolu loolu lu baax la daal c'est très positif Mhm. donc loolu moom xam naa ne nekk na ci man. Mhm. te di ko sant yàlla aussi. <laughs> d'accord <laughs> question bi tey gis nañ ne femme bu forte nga ci li ngay def am ci fulla ak fayda di doxal tey lan moo lay gën a jox jom ci boobu la liggéey loo xam ne boo ko xalaatee rek dañu am envie continuer ci li nga nekk mbaa nga def plus que ci li nga nekk. waaw euh, liggéey bi ci laa gën a kontaan parce que. Euh, tey boo xoolee déjà man défi dama amoon benn défi. Mhm. muy mi Sénégal nga jëlee ko fii yóbbu ko fii. Mhm. te défi boobu mën naa ni maa ngi koy relever. Euh, beneen bi mooy je suis une femme autonome. Mhm. boo xamante ne nii xaaruma góor xaaruma kenn def ci man. donc li ma war a am yëpp macha allah maa ngi koy am. Euh, loolu maa ngi koy sante yàlla donc vraiment loolu pour man fierté la waaw fierté la. donc loolu mooy li nga xam ne am na solo ci lu ma mm-hmm. gis mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que am nga parfois nga toog am regret bëgg a bàyyi lépp non non jamais mosuma am regret parce que gis nga ku réussir jaar nga ci ay xat-xat parce que dara xëyul xëy yomb waaw tey boo laajoon ñi fi nekk kilifa tey fu ñu jaar am nañ ay jaar-jaar mm-hmm. donc euh, moo tax mais loolu daf lay gën a euh, réconforter da ngay gën a góorgóorlu mu gën la yokk jom gën la ñulu mm-hmm. nga xam fooy taxaw xam fooy tege say tànk donc je pense que yii yëpp expérience la mm-hmm. yoo xamante ni nii ku ko dundul rek yow mënoo nekk leader il faut nga dund lu metti balaa ngay nekk leader d'accord tey avant dernière question bi boo doon choisir entre moto euh, musique wala voyage ban nga ci jël <laughs> xam naa ni voyage laay gën a jël <laughs> parce que li may voyager bari na <laughs> man moom voyage dama ko bëgg ci sama xol. Mm. waaw donc euh, loolu dafa bokk ci sama sama vie parce que damay voyager rek loolu moom yàlla moo ma ko nattoo. Mm. waaw. <laughs> d'accord mhm. dernière question sa plat préféré ndaxte comme man mii dama bëgg kaldu. <laughs> yow joolaa nga n'est-ce pas. balante ah, mm-hmm. donc looloo tax nga bëgg kaldu. waaw mais nag kaldu neex na de waaye nag man yaasa moom ma ko dàqal. yaasa banti c'est bon yaasa jën yaasa yàpp yaasa ginaar yaasa poulet yaasa ginaar. Mm. waaw man dama bëgg poulet. <laughs> da koy togg bu <laughs> baax aussi waaw viande blanche laa bëgg parce que comme mm. viande blanche xam nga amul gras. Mhm. te ñun miis yi dañu tàmm di def régime doo dañu bëgg a jeex donc moo tax toujours dañuy préférer lekk loo xamante ni du am gras. Mhm. te poulet amul gras. Mhm. mooy de gras donc du coup man dama ko bëgg. donc yaa sa poulet mooy sama plat préféré. c'est important <laughs> ça a été un plaisir Amina ñu bàyyi la nga tàggatoo wala boo amee looy wax ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan ci émission face ak facette ci Sénégo TV ak kawteef waaw di rek euh, souhaiter femmes yëpp encore euh, bonne fête de la femme ci mois de mars bi. Mm-hmm. di di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo may seetaan. Euh, di leen remercier yéen waa Sénégo TV. Mm-hmm. yow surtout madame Mané vraiment ci déplacement bi ak équipe technique bi yëpp. Mm-hmm. di leen sant di leen gërëm. waaw di ñaan nag jàmm Sénégal dañu bëgg jàmm ji sax. ak continuer waaw. D'accord. Merci. Ça, ça, a été un plaisir de vous recevoir, euh, Madame Badiane, présidente du comité Miss Sénégal euh, Miss Sénégal kontaan nañ bu baax ci waxtaan bi ak Madame Badiane gis ngeen tey beneen facette boo xam ne indi nañ ko ak ci biir waxtaan bi ndaxte nekkul ci mbirum. préparation wala organisation Miss rek ci lay yëngu ñëw nañ ci li nga xam ne ay don yi nga xam ne da koy def fii ci Sénégal wante it ñëw nañ ci côté li nga xam ne mooy religion <clears throat> taalibe cheikh bu mag la taalibe cheikh yi seen mbokk mu ngi nii toog génneel naa leen ko da ko doon nëbb nag <laughs> wante ñun moom dañuy laajte lu ne um, noonu la fay demee saa su ne beneen émission beneen numéro incha ngeen xaar ko ci Senego TV du pare nag sans pour autant ma remercier ki nga xam ne mooy complex Eva Beauté nekk Nord Foire euh, ci côté yum yum bi numéro bi mu ngi nekk ci 77 951 35 58 ñoom ñooma ma defal coiffure bi ñoo def aussi maquillage bi madame nga sànni leen benn moo ndaxte ay jigéen lañ ay ndaw yu battante bëgg li nga xam ne mooy autonomie di def lu rafet nekk fii ci Nord Foire maa ngi leen di gërëm di leen sant di gis aussi ni ngeen ko defaree ni mu rafetee ndax maquillage bi soft na euh, coiffure bi jekk na li mu sol aussi macha allah donc di leen encourager rek di leen souhaiter aussi bonne fête de la femme ah di di di espérer aussi ñun tamit bu ñu ñëwee ngeen defar ñu ñun waa Miss Sénégal ah. absolument <laughs> moo nekkoon ci côté technique bi jërë ngeen jëf ñu jox leen dig daje ci beneen numéro merci beaucoup.